bëgg kii ba noppi nopp kële man manuma bàyyi kii te bëgguma bàyyi kële kii dafa dooj dafa mokk pooj kële dégg daaj bari lool feeling paaj kii ba noppi nopp kële man manuma bàyyi kii te bëgguma bàyyi kële kii dafa dooj dafa mëkk pooj kële waxi takk googu moom laa bëgguñu ñu bàyyi ko maa doon bëgg a def lu baax yéene woon Abdou waxi takk googu ñu doon wax dafa yëngal sama kër yëngal sama ménage jamono yi ma lay wax ak yow nii ci ay problème yu metti laa nekk te dara waralu ko lu dul takk gii ñu bëgg a def kon daal yow asu yow kafoo déedéet dinaa la ko xamal sëy bii sa sëy di yëngu day am muy defaru day am waaw xale bii duma tas yaakaaram yow kii lépp lu war ci xew mi def nañ ko xotti ñaw lépp lu war ci moom def naa ko borom baas bi fay naa ko ba mu mat Mandiaye Seck mi ko war a tëgg fay naa ko ba mat amul lu ma leen desee côté ndugg ak yëpp dama ko joxe à part ña ko war a yore ah nga toog ba tey naan ma ay affaire xoolal sa ménage boobu baal ñu xew-xew mi ba pare su jàllee dinaa ut solution xool nu may régler sa kër yow aji lii nga may fayee aji yow fi ma jaar ak yow yëpp aji musumaa lekk bàyyi la musumaa naan bàyyi la lu mu mës a jënd def naa ko ñaar musumaa xool fi sa bët di xonq musuma koo fekkee aji ma am sama problème yow tey dangaa waroon taxaw ànd ak man sama problème boobu teg takk gi ci suuf ba sama problème réglé tey nga taxaw fii di ma wax yow sa intérêt rekk ngay seet aji ndekete yow fii ngay mu ak man olof di koo xamul na nga koy def nam la di fa tax xam nga lan laa bëgg nga xam ko duma xool lu la neex bàyyi lor sama rak damaa foog da ngay jaaxaan mais xool naa ba xam ne ci sa dëgg nga ne. ci sama dëgg laa boobu moom mooy xaar. sëy bi paase man ma réglé ko bu la doyee xayrun bu la doyul nag nga seeti leneen mais takk gi duma ko fomm tey duma ko fomm ëllëg lu leer laa la wax bëgg naa lu la neex torop na mais duma lor doomu aadama ndax moroomu doomu aadama. xaaruma la woon fii de. Ah, fii moom xaaruma la fi woon. Ah, te jàppoon naa ne sama mag nga. mag googu nga doon woote. dama jàppoon dëgg la ci yow. ba tey mi ngi ci man waaye du dëgg ci yow ndax yow sa intérêt. waaw ba tey ma ne astu noo ko gisee muy noonu. noo ko gisee muy noonu waaye sëy bi moom mun a fexe fexe ba mu ñàkk am. Euh, kii kon kaful de. aji aji dafa doy. yow kan ngay dóor. dama ne dafa doy li ngeen doon wax yëpp mu ngi sama biir nopp bi na nga doon yëddu du moom nee na bëggul sëy bi am man ci boppam maa bëggatul. waxoo dëgg de man maa bëggatul sëy. ma waxoo dëgg laa wax nga mel ni ku sol peñuwaar ni génn ca salle de bain nga bëgg sëy bi day am nga ñàkk bëgg sëy bi day am wala yéen ñaar da ngeen fàtte ne wërsëg bi yàlla rëdd sama jib bi ma war koo am yéen mënu leen ma koo xañ. Roqaya yow yaay dem kër Asou sëy fa ni ma neexee. am fa li ma bëgg déggoo ma de asu damaa bëgg nga woon ko ne moom yàlla moo dëpp fa mu war a jure ba du jur doom suñu famille dañuy jur macha allah damaa bëgg nga dem di ma ko triplel premier seex yi muy jooy deuxième bi mu feebar troisième ba mu gàddu ay bagaasam génn kër ga kër ga damaa bëgg nga téye ko yow kisa ak sa jëkkër keneen du fa daagu déggoo ma de. naa ma du am yow aji. li mbedd bi di wax maa koy bëgg a gëm. mais yow aji xooloo sama bonheur nekke nekke yow sëy bi li tax nga dugal ma ci sa intérêt dong la. ah yow xooloo ni man dinaa si am bànneex wala duma ko am. yow maa mbedd mi dama leen a faale. yow tee ngaa sëy sëy bi bokk. moo gën nga ma ciy dugal yaa koy sëy naa jàmm gis nga wërsëgu intérêt boobu yàlla tëmbal ci sama kër gii. ah moom ngeen bañ ma euh, ma ma conjugué ko man mii la ko yàlla jox te dama koy nangu ba mu neex ma dama ne sëy bi yaay ki koy sëy yow dangaa am guerre boo war a affronter ji. aca jógal. lenn rek laa lay yëgal dama xamal la ko bu baax nga dégg ko sëy bii ni duma ko sëy. dama bëgg man manuma bàyyi kii. te bëgguma bàyyi kële yi waaw xanaa woowu ma la kii dafa dooj dafa ma laa soxla de doo ñëw mbir suba la lundi dama war a jàngi sama uniforme bi dafa tilim ñaari fan yi nag ñëwoo dama bëggoon nga futal ma ko ba pare sama dàll yi bul fàtte nga fompaaleel ma ko dayam <laughs> waaye Sofia yow yow xumb nga de li ñuy wax ci nit ku ñuul yoo xamoon sax bu asamaan si xëy na fi mu ne nii yow lan mooy seen njëriñ ci kër gi yow néeg bi ngay tëdd sax maa koy defar waañ bi man maay togg di jox way di di fóot torchon yi di bale di fomp man duma jaam yaa ngi may dégg yow mii yow cuuqal nga de yoo xamoon sax pour sos di yow mii nag kenn yow la quest nga lu ma lay yëgal kër ma fi pour ma lay fóotal sa néeg bi ngay tëdd sax yow maa la yow ba njëriñ nga fi am yow réglé la ah li séeréer naan réglé yin yow réglé yin yow ra mbax nga dee ni di mbax papax yow loolu daal jàmm muy yéen <laughs> waaw eh, da ngaa wax sa fuloo pare toogal dama lay danga may déglu taxaw doo dem te du astu moo la dooleel ci kër gi lu ñu wax lu waaye wax rek nga xuloog moom respecté woo ci kër gi ku dul moom waaye maa ngi xaar ba Abdou wàcc su Abdou wàccee lépp dinañ ko lijjanti xamoo sa bopp yow te dina leer te uniforme bi nag di ko fóot ci nii machinal ndax moom lay jàngi suba gis nga faalewu ma Abdou Abdou amul danger police su màq la defar sàppe joxe tàndaaram faalewu ma ko na Abdou ñëw kër gi caaxaan génne wu fi dañ maa embauché pire. waaw baax na loolu fii nga waxee bu Abdou ñëwee lépp dina leer. nga yëbaate yow jàllal ne bu dee mën ak yëre du set bu dee mën rek su ma doo jàngi. fii nga koy waxee ah, ba mu ñëw bu Abdou ñëwee lépp dina leer. tey de de ku la ko jëm kër ga day mën rek du set muy yéen <laughs> ah jikkoy Sénégal. bëgg kii ba noppi nopp kële. Ndiaga moo def Ndiaga yaa sant. ça va maintenant yaram bi tane naa bu baax sama yaram maa ngi ciy yëg jàmm wér naa. mais si dama doon waxtaan ak aji xam nga sama xaalisu wargal bi ma indee. dama doon ne est-ce que duma jël cinq cent mille bi jox la pour nga am si benn début parce que ambulant bi métti na torop man xam naa bu baax li ngay daj xam naa bu baax euh, lan moo ci nekk parce que du démb du tey démb la woon léegi nag mu aji sax nanguwul woon mais comme que man damaa tàmm doon épargne di bàyyi xaalis sama compte léegi fa laay dem récupérer cinq cent mille yi nii ma ne ma jox la ko même bu dee sax prêt à porter nga siy ubbi nga ubbi ko si dina la mën a jël. yow noppil waayew maa ngi la bàyyi ngay wax rek di ibbi sa làmmiñ di wax rek sa xaalis bi téye ko man duma góor gu jigéen di jox xaalis naan na dem liggéeyi. salaamaaleykum salaamaaleykum. waaye loo xale ba génn ci waañ tey ana bëri. fu mu dem looy def nii jooy lan moo xew waxal ak man lan la jàmm ah dara la kay di jooy nii ba sa kanam gi changé nga ne ma du dara ah ay waaye waxal ak man bul ma rey lii jàmm la lan la ah? Abdou Abdou moo tax nga taxaw fii di jooy Abdou mii moo tax ngay jooy anamu sax moom ah mi ngi ci suuf toog maa ngi nii koy fekk. li muy yabaate soo ko bëgg dee. kan ngay tàllal cinq cent mille naan ko mu ibbi ci ay prêt-à-porter man. noppil duma sa morom. que sa soit la première et la dernière fois nga di ma ko def man góor laa man li may dundal maa koy ñax te li nekk sa waa ji ba ba muy balballu di yëngal seen famille. may ma fan yu néew ma lijjanti ko teg ko ci yoon wi yow suma lekk man suma ma alal nga yow foo mënti dem loo mënti am yow ci sama kaw ngay mujjee te boo doon gor sax yow xoolal doo fi toog tey ak yëfi jaam yi ngeen ma dund nga naa ma du man lépp aji la. mais man ngay sëyal yow laa bëgg. man maa lay waaj a takk. mais aji jël sa làmmiñ bu xëccoon sa loxo teg ko ci gaz coow lay bëri di nga yuuxu ba askan daje fa. te gis nga aji bi mooy ñetti yoon moo la koy wax bëggatuma suñ toogee man ak yow nga koy wax ma di ko dégg. Abdou naa def. xale maa ngi fi. ah sama chéri bi bàyyi nga ma de. <laughs> dégg bi loolu bàyyiwuma la ah, maa ngi yow maa ngi seen sa doom ci circulation bi. maam waaw. mais moom elle a grandi de. yow de gisoo ko ni mu gaawee màgg. léegi jànk la. jànk la. waajal de xam naa léegi nga maye. léegi rek bientôt yàggul dara. <laughs> <laughs> mais namm naa la. lépp jàmm. alhamdulilah ça va alhamdulilah. Abdou de man de damaa yéegoon ci kaw waaye daal ni ma gisee sama xarit neexuma <laughs> neexuma dara ndax fekk naa ko mu changé jooy jooy metti te xaw ma lu ko waral ma bëggoon na nga wax ma lan la. nga ba ma jommal. jommal lu xew yaa xam nga ma may laaj dama bëgg jommal kay da nga doon wax kay xaaral moo tax man xaaral mu wàcc jommal la. jommal yow yaa xam lan la <laughs> wuyu ma. waaye ci yow. waaye nag nettali. ci gémmiñu boroom la dàqee. waaw mais xarit aji dama ko suur dama ko gedd ci sama dund man baadoo la warkat hypocrite kooku soxloo ma ko ci sama àdduna sa cinq cent mille bii nag delloo ko ci sa compte ndax yow waratoo maa jox dara alalu jàmbur nga yow yaa ngi mel ne xar mu nekk ci gétt mu takk ko ci buum waxaale ba koy waaj joxe ka joxe avance rek moom moo la moom mais du man du dangaa wor du da ngaa topp sa mag jooju nga xam ne baadoola la nit ku bon la ku soxor la ku iñaan la muy aji njëga man yow laa bëgg man ngay yow laa bëgg aji rek ma dugal ci problème yi ma nekk nii yépp aji bu jëloon sa loxo taal gaz di ko ci teg coow lay bari waaye du ci tegu te jël seen làmmiñ nga naan ma aji yow yaa ma war mooy lu mu def moom waaw mooy li ñu def tax te nga xam ko moom moo dem non moo dem dox lu muy dox xëy suba rek ñëw na ma li ma defoon yépp dañ koy bàyyi ne la nekk li nga olof di wax man damaa xuus ba si baat fi mu toll nii dellu ginnaaw man du ma wax di di di di dindi. Mm-hmm. waaw wax naa ba pare man li ma wax dama koy def. Ah waaw. Abdou daa déedéet gis nga yow Abdou man nag maa jaaxal ndax dangaa mel ne dangaa commencé jéng. nga. Mm-hmm. moom moo lay influence. xam nga lu ma bëgg nga xam sax aussi mhm. moom daa elle a ah ba ci communication am daa changé. changé léegi ñaari baat ñetti baat mu yuuxu la. taxaw sa digg bopp loolu yëpp sax méttu ma lu ma metti dëgg dëgg dëgg dëgg mooy sama kër gi ma dafay soppi laa micro. yow yaa ma toroxal yow yaa ma bett te gis nga li nga ñëw sama kër moo tax mais bu daje ci mbedd naa la woon suma jikko te et puis yee sama yaay mu yeewu wax di nekkati sama diggante yow jugal jugal nga génn ci biti. Jéego mën ngay daak xam nga laa mi golo moom fu mu amee ay golo ñoo koy bëre benn golo bi moom xam naa moom la. waaw. te yow xam nga lu la bëgg a gis nga nit dangay sàmm kóllëre Abdou fa ndox daan taa boo fa demee ba tey fekk fa tepp tepp ndax nag man sama xarit gisuma ci moom benn changement. Ah, waaye ni ma déggee say kàddu nii Abdou dangaa mel ne dangaa jéng. xarit eh, kuy ma <laughs> yow suma xarit nga. Hmm. yàgg nga si kër am na yenn wax yoo xam ne waroo ko sax wax. yaa may xas. xasuma na de ah tey. yaa may xas léegi de waaw léegi wax wax léegi xam nga loolu mhm. ma laaj dara de. ana gars yi. man tànk sama xarit bëggul bëggul. waxuma loolu de xanaa gars yi dañoo gumba tànk xooluñu la de lu xew. kenn xoolu ma kenn nag xoolu ma. est-ce que yaa métti affaire bi. non métti lu ma ko dee. Hmm. gars yi dañuy sóob rek. Ah, yow xam nga loolu sax. waaw <laughs> lu ma koy doyee ñu léegi ay mag lañ bàyyi rek ñu jaamu yàlla. <laughs> am na ko waxoon lool de. dama bëgg kii ba noppi noppale. am naa la billaay maa la raw. si jàmm daal. man de aji danga maa woo rek ma daw ñëw xaw sax lu may def mbaa jàmm. ñu ne xam nga dama la daan woowee ni ma la woowee tey mënta nekk jaam man kat loolu ma jaaxal moo tax ba nga ma woowee rek ma daw ñëw ci xew mi nga may woowee ñu def ba mu baax rakkaaju fàngaa ñu ñu lañu def ko dinañ tëgg sabar dinañ tëgg bool képp kuy tëggkat mbaa fecckat rek dinaa la woo ci xew mi ndax aji suñu xew rakk mi dañoo ñor de xew mi nu mu ma ñore xew mi ku ne laa ko yëgal dem naa marché yépp ca Ibu jënd naa fa gesneer jënd naa borode te comme moom daa mën bay def rek nañ defanteel moom man nag bëgg naa bu ñu jógee fii du duñu yàpp fii lañuy jaar respecté ñu ba faaw fii lañuy jaar yàpp ñu te suñu xew rakk ji fas yéene naa bu ñu fi jógee ñu naw ñu ba faaw ndax fukki gesneer ak ñaar dinañ ko ko jox jox ko fukki brodé ñaar lu nekk daal fukk ak ñaar loolu de laa bëgg ñu def ko defanteeg moom sama géer doom ndey lu xew bi ngay ñëw yan daal nga sol ay carax laa sol carax mhm. gëm naa ne di nga wut ay dàllu laase foo jaaroon yëgle fa xew ma nga jaaraat fa ne foo mën nañ ko ah xam nga lu tax yow ngi spécial ci man yow rek yaay koo xam ne ci ñoom maa la gisal sam bopp doxal la sam bopp taamul la sam bopp na la taxal sam bopp waaw ndax suma première femme suma moom moomu ko mayoon yàlla na suuf sedd ci kawam suma deuxième femme sama yaay moomu ko taxal troisième bi sama aawa moo ko tax ah te olof yi dafa am lu ñuy wax dañ ne sëriñ ak jabar ku ko tànnal su bopp doo ko rëccu moo tax man ma gëm ni yow boo duggee sama kër du ma ko rëccu te nag naa la wax benn du li ma leen nii du chantage de mais je te promets que si tu acceptes de m'épouser non seulement je ferai de toi la femme la plus heureuse mais je suis la plus comblée de ce pays sant de. sama xel biir yëpp maa ngi def si écran bi sama xel péew fii. Abdou Abdou ba léegi waxagoo ma dara. loo xew. lu gis nga démb bi nga fi génnee fii lañ toog ci saal bi ba nga ba nga ba nga paree ba dem na fi as suñu <coughs> pour man day ñëw salaamaaleykum di lewatal ay kanam ak yu kenn xamul maa ngi koy gaawtu naan ko loo fi dolli duma ko jël ndekete la may dolli. poison la aji fi nii samay ngar a yéeg. xam nga lu ma wax waaw ma sañoon xew mi ñu fomm ko. ah fomm menn mi. fomm ndax bi astu demee roq yi dafa dugg ndekete li ma doon wax astu yëpp mi ngi koy déglu mu ñëw ne ma waa comme astu buggatul xew mi man tam bugguma xew mi. xoola damaa dal bëgg a dal ci kawam mais la ma daloon ca asu mënumaa jóg sonko ndax samay cër a dee samay yaram fonctionné moo tax mënuma koo def roqee ma xas ko ba mu ràbb xale bi mer génn ndekete bi mu meree génn pour man dafa mere génn noonu dem ba fii may wax ak yow roqee duggaatul ci kër gi du jikkoom du jikkoom dañ ko cee dugal du jikkoom roqee mi ma xam ñu yar ko fii ba mu juddoo ba tey ba mu amee ñaari at ñu jox la ko nga yar ko def ci moom jikko ji ci yow nga jël ko def ko ci moom Roqaya du jikkoom loolu di jikkoom waaye man nag fi nii damaa mel ni ku ñu tuur ay yamb nga ne xew dañ koy fomm. woo naa ko téléphone jotuma ko xaritam yëpp woo naa leen téléphone ñu ni ma nekku fa xaw ma fu Roqaya dugg. ah xanaa ci affaire takk yi. takk yi lan laa la ci waxati. ah am na waxuma dara. lan laa la ci wax. man bi ma yëkkatee un million teg ko sa loxo yëkkati cinq cent mille teg sama loxo yaay laa ci pare lan laa leen wax si wax takk yi takk yi ban pare naa ci de man sax foogoon naan yow waxu takk dootuma ko woote lan laa wax si takk bi. yow xam nga ne ñoom ñaar ñëpp man maa leen war a wàccee ndax man la ñuy fekk si te waxoo ma fi mu nekk nii kan moo war a doon ñaareel ak kan mooy doon ñetteel. asu xam nga man bi ma la joxee un million jox sama yaay cinq cent mille laa wàccoog yéen. man loolu xoolal si le cadet de mes soucis ay problème mu ñaareel ak ñetteel xam nga léegi nooy def pour mu yomb ku njëkk ko dugg rek def leen ko muy ñaareel ku si topp nekk ñetteel loolu daal bu ma ko sax waxati. waa baax na dégg naa li nga wax beneen bi tamit mooy néegi xanaa au moins war naa xam sax ku ñëw ba néeg ngay dugg maa ngi gis yaa ngi defar ñaari néeg mais waxoo ma ku nekk ban néeg lay dugg. kon ça veut dire ne xool nga néegi moom kon déjà xam nga ni néegi ñoo amul benn amul amul benn différence. yow rek sa néeg laa defar defar boo xam ne bokkul ak benn néeg defar bu spécial laa ko defar ndax lu muy yow moo tax léegi na xamoon na def da ngay taxaw si di kër gi bu buñ dugg see ñoom ñaar nga téye seen loxo maa la may loolu nag ku nekk néeg bu la neex nga jubal ko foofu ne ko fii mooy seen dara ak jàmm. xam nga laa nekk sama jàmm rek waxu takk sax foogoon naa doot ma ko dégg si kër gi bàyyi la ma daal ma nekk sama jàmm sinon ma demaat fi nga xam ne foofu laa amee jàmm si suuf ndax man nag man fi mu toll ay coow dama see doyal wax dëgg yàlla dama see <laughs> man nag damaa yaakaar ne damaa tooñ wàlliwu nag waaye du kenn lii yépp maa ko def man maa doon sob soblu di waane waane lu naan damay takkal Abdou jabar ba lii yépp fekk ma ci ah naa assumer rekk waxuma la dara aji mii nga xamante ne sama xarit la woon aji dikkee ma nii tey ak sama propre sœur bu ma wax mu jaar na le man daal jaaxle naa man as waa man lii fu ma koy waxee. te xam naa ne nag bu fekkee dafa repp ba fàq ne day dem di ci njàkk mm. nga xam ne lépp dëgg la. yow may ma boobu boobu may ma ko maa koy réglé yàlla moo ñu bëgg man de pettaaw yi. lu ma nag ci masa wax du dañ te sëy bii dina am. yéen de laa leen xamal xaw ma xelu roqe yi la xaw ma du xelu roqe yi mais lii dafa am leneen lu ci sama xel njort. Hmm. loolu ngay wax naa ndax damaa xam ne astu ni mu jógee sama kër démb bu fekkente ne dafa jéem dara ci roqe ya ba tax xale bii dem <laughs> dina xam ne li ko naqari teguma ko ko de astu dafa war a xamante ne bu moom ndegam mooy seen jëkkëram ji yàlla may ko lu dul jeex. muy jàll ci ginnaam guddeeg bëccëg mënu cee jur doom loolu na ko kalaameeg yàlla. dafa capable nag ba bëgg cee boole lu ci bokk. Mm. dina xamante ne Baara Mbay joo gis am na ku ko moom te man nag damaa moom moom Baara Mbay bokk ma ko sama moroomu jékk lu leer laa la wax nag sama boppu jaax ubu na ràpp nag jaaxle naa. aji man di fi toon ni damaa bëgg a jooy sax nag ba nga ne maa xew mi asudaa ñu fi wax waxi foomu waaye Roqaya loolu du xelam du xalaatam dañ ko cee dugal xamul dara yaa ko yar te fanweeri at maa ngi ànd ak yow te lu ma la mës a wax vérité la loo ma mës a wax ma fas denc vérité la ñuy waaj xew mi yàqkat yaa ngi yàq ba tey waaye foo fekk koy yàq rek ngay defaran ca ginnaaw yàlla def na ne laa ilaaha illallah mbër mi ñëw na. Kayta ñëw na Sénégal dañ ko fee indi. Keita woo léegi dinañ ko sunguf dinañ ko reen dinañ ko jox mu sangu dina ko jox mu lekk dinañ ko jox mu naan. ah xanaa loolu de xanaa nga woo Keita de te Keita yi nekk koo xamante ne nii mën na lu muy def ndax fi mu ne nii dama cee daw nag saa la yaayi leer ndax asumi il faut ma affronter. yow yàlla na may sànq asuma teguma ko ko. yow di jàll sa ginnaaw jëkkër te mënoo fexe ba jur doom loolu danga koy waxante suñu borom bu fekkee ne dafa amul numéro suñu borom man maa ko koy jox maa ngi 77 am bi. su ko doyul ma jox ko 76 bi ba 70 bi ñëpp numéro maa ngeeg moom ah, roqee mii dinaa ko may jëkkëram. bëgg kii ba noppi nopp kële man manuma bàyyi kii te bëgguma bàyyi kële kii dafa dooj dafa mokk pooj. kale dégg daaj bari lool Feeling Patch aw demore te bul ma xool su bëggee rek ma dee ma xool sa bët yi dafa naay sa isti leb arrange oh ma fresh sama xole damay fly ajana bëgg ma su dee